ci kanam mu taskatu xibaar yi ak jigéen yu bokk ca grande majorité présidentielle doon dëggal seen bopp te di woo président Macky ngir mu nekk ab candidat ca élection tàbb nguuru réew mi ñu dëgmal. yéen nag ci gàttal biñ ko dajalee ñu ne ñun faamu Benno Bokk Yaakaar dañu bëgg taxaw taxaw ci kanamam taxaw ci ndeyjooram te taxaw ci càmmooñam. ne ñun yow la bëgg nga continuer di diriger le Sénégal saal bi nag xumboon lool ngir rek wane seen mbégte ci seen candidat. jigéenu président Macky Sall yi ginnaaw fukk ànd seen mbébét rek mooy jàppale njiitu réew mi ngir muy wëy di jiite réew mi bu sukkandikoo ci ministre conseillère président Macky Sall jëloon na fi à a moment donné benn résolution ne moom dafay dem wàññi mandat bi ko éliroon de sept ans conseil teew si ne ko déedéet mun loo en aucun cas di ñu seet ne président Macky Sall nitu président Macky Sall à ci àdduna bi wër képp dañ ko reconnaître comme un démocrate accompli dañ ko reconnaître par quelqu'un qui a ki nga xam ne yëkkati Sénégal ci kaw koy ba ñëpp di ko gis ñëpp di ñu ginnaaw ba ñu xayma yenn jéego yu nguur gi jot a matal ak rëkk-rëkk ya mu jot faj ci réew mi ñoom jigéen ñi bokk ci benn bokk yaakaar di xamle ni rekk président Sall ak na baar bi looloo waral ñu ànd taxaw temm na ko dooleel ngir mu nekk ab candidat faluwaat ca élection tabu nguuru réew mi ñu dëgmal 2024.